حمدا لله بن الخير الغفير ñu ngi wax mbokk yi ñu ngi fii ci Touba murit ñu ngi ñëw fii tey di def màggal ak Serigne Touba. fekk bu sa ak euh, sama yeneen gars yu nga xam ne ak soxna yi ci biir baas bi ñoo ngi woyee liggéey bi yaakaar naa dañ koy jox kàddu rek mu sànni ko ñu commencé liggéey bi. bi laay monsieur Seydou Ndeye Diop jërëjëf ñoo ngi baax leen Touba leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax macha allah comme ni nga ko waxee rek ñu ngi ñu ngi ñëw fii ci Touba boo leen gisee lii rek ngeen xam ne mooy dañu amal màggal goo xam ne dañ ko amal sag année ci dippee suñ maam si Aly Dieye Bousso di ci liggéeyal nag Serigne Touba boo gisee soxna yi ak gars yi nekk ci waañ bi yëpp amal rek liggéeyal Serigne Touba waaw moo waral lii yëpp ngeen gis di sant nag suñ maam Aly Dieye Bousso euh, bu njëkk dañ laan uti ay xotti biteel di baas ak yooyu noonu mooy baas yu métti yooyu waaye léegi boo demee ba si baas bi wala nga ñëw ci waañ bi rek da nga xam ne am na lool waa nga xam te lépp nag ñu ngi koy sant sëriñ bi rek waaw ñëpp a fii ñëw ñëpp a fii ñëw waaw police gendarmerie ñëpp xeeti yëpp dañ fi ñëw waaw ñii dañuy béy ko fu nekk Dakar Mbour Touba nekk ak ci région bi yëpp nga xamante ni lépp nag gars yi ci ñu baax a baax la nga xamante ni woote ñu wuyu si la lu la waaye nag ñëpp dañuy bàyyi ci ndiite ñëw ci bis bi jàppale waa dëkk bi parce que daanaka ñi gis waañ bi presque dëkkuñ ci dëkk bi dañuy béy ko ci dëkk yi fasanti ko ñëw ci waañ bi di liggéeyal Sëñ Tuubaa nga xam liggéey Sëñ Tuubaa moom mel noonu jërëjëf leen sant baax a baax te xam ne nag lii moom mooy mbiru Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa moom ku nekk ku la ci woo yow min la woo nga ñëw si a war a sant sax waa nga xam te Sëñ Tuubaa ay mbiram wala ak fayam ab fayam moom dafa dafa taw féexe waaw taw féexe lool nga xam te lu amul lu dul sant ñi lay woo ak ñi ñëpp ci yëpp ñi ñi ñii ñëw yëpp ñoom ñëpp dañu am tawfeex waaw nga xam liggéey Sëñ Tuubaa daal taarika la. damay jël euh, si benn soxna fii rek mu nga xamante ni. gan ñi fi teew ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax nga woote bis ñu déplacé wu ñëw fekk si la loolu dafa jafe te saa bu ñu wootee rek dinañu fekk si. ñi nga xamante ni ne ñoom laa nekkal si waañ wi maa ngi leen di sant bu baax di gërëm ndaxte depuis boobu ba léegi ñoo ngi si liggéey bi sonn wuñu taayi wuñu heure boo leen wooree ñu jóg fekk si leen yal na leen sëñ Tuubaa fay ci barke Seex Xaadim tey jii nii Waarwi TV mu ngi ñëw fii Touba Mouride nekk eh, di wéyal liggéey bi liggéey bu nga xamante muy liggéey maam borom Touba xaxar naa liggéey maam borom ñun ñoom ñoo ko bokk moo tax luñ ciy def dañ ciy wéyal liggéey bi rek ànd si maa ngi leen di siyaar di leen ndokkeel ci bés bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tamit te di leen wax ne kontaan nañ ci bés bi trop ndax eh, gis nañ taxawaay bi ndaw yi posté fu nañ mag ñi posté fu nañ wa dëgg fi yàlla liggéey bi lépp macha allah ku nekk daal fi nga féete a li nga li la war yaa ngi ci góor góorgóorlu bu baax a baax kanaa di ñaan yàlla lépp luñ fi def rek ngir liggéey sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa fay ñu fulal ñu ko di leen sant yéen ñii tamit di waaru TV n'est-ce di leen ñaanal jàmm li leen déplacé loo ba fi ngeen yegg si nii lépp doon ay yiw ci barke borom Tuubaa lépp sëriñ bi doole xewal muy saawaan di baawaan ba fu ngeen bëgg a yegg yéen a ko xam ngeen yegg fa wala yàlla dafa leen ngeen yegg fu kawe seen jott ci barke borom Touba ndax ñun ñëpp ay taalibe sëñ Touba te lëggéel sëñ Touba moom amul asaar sëñ bi moom loo ko defal rek mu fay la ko waaw moom jooni jooni lay def amul yomal xiyaam amul kese amul amul amul suba amul gannaaw suba lépp loo ci def te trigo liggéey te yàlla tax rek moom di nga ko gis léegi incha allah képp ku ci nekk tamit di liggéey te yàlla tax pour liggéey sëñ Touba doo ñëwee sa morom doo doo kenn ndax kenn du la jiitu ci lenn ndax sëñ bi moom mooy borom teraanga mooy borom xéwal mooy borom wërsëg moo yor lépp kon di leen sant di leen gërëm. di wax ne tey mhm. ñu ngi fii ci waañ bi yéen yaa ngi fi ànd ak soxna yi. Mhm. nekk di liggéey liggéey bu am solo bi ngeen nekk ko ci waañ bi looy wax soxna yi ak uh, góor yàlla yi ci waañ bi. waaw soxna yi góor yàlla yi moom dama leen sant bu baax a baax di leen delloo njukkal ndax waañ bi depuis démb ci gudd ba léegi ñu ngi ci mën naa ne seen nelaw doyut sonn nañ trop waaye ñu ngi koy jéngu ndax démb guddee nañ fi trop góorgóorlu nañ daf liggéey liggéey bi instant bi nii démb lañ commencé liggéey ba léegi ñoo ngi ci koom te instant bi pareegul nii lañ nar a fii ba ngoon wax dëgg fi yàlla sant naa leen gërëm naa leen tamit euh, jàmbaar lañ Baye Fall jàmbaar lañ Yaay Fall jàmbaar lañ tax ñu ngi bu baax daal lépp lu leen war daal ñu ngi ci waaw ñu ko bëggee daal ñu ngi koy defee noonu wax dëgg fi yàlla ñu leen ñu bàyyi sëñ bi rek sëñ bi fayal leen boppam moom mi am fay waaw macha sëñ bi jërëjëf. waaw li ñuy def dañ lay njaaraamaa rek ñu wax na ñu ànd dugg si biir dëkk bi rek wala liggéey bi yaakaar naa ba si kanam. bu barakaatu ñu ngi leen a nuyu ci seen ak seen sant yéen gan ñu fi teew ak dëkk yeeg ñëpp sant yàlla di gërëm sëñ Touba di leen ak maam Diarra Bousso ñun ñooy bay faali maam Diarra ñu ngi ci waañ bi di jàpp ngir sëñ Touba mu jàppale ñu fii buñ fay ñaq. sëñ Tuubaa moo tax ak maam Jaara moo tax ñu fiy ñaq yal nañ taseeg seen ngërëm yomal xiyaam ak fiñ dëkk nii ci barke bi yonent bi yal nañ ñu gërëm yàlla gërëm ñu ñu ngi ñaq ngir ñoom ak borom dëkk di sant borom dëkk di sant njabootam ndax ñoo gën a tuuti ci dëkk bi te jiital nañu ci mbir bi waaw feeñ nañ ci dëgg te ñoo fi gën a tuuti kon nag bu ñuy fee bu ñu ci feeñalee ba ñuy jox rajo ñuy wax nga xam ne sant yàlla te yal nañ yàgg a sant yéen ñi fi ñëw yéen léegi yéen itam yal ngeen fi yàgg a taxaw te yàgg fii ñëw lii war leen yal ngeen ci yàgg te xam ci ngërëmal yàlla te tase ci sëñ Touba xam ci ngërëmal sëñ Touba ak ngërëmal maam jaar ci barke Xaadim Rasul di sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di yokk ak cant yéen di lañ mas coono ndax fii ko bu di ko ñu ngi jàppale ndax ku la fees la moo la jàpp la yoonu sëñ Tuubaa ku la ci xool bëgg na la jàmm ñu ngi ñaq bu baax duñ ci métti leen yàlla rafetlu la njaaraamal jërë ngeen jëf yàlla ni ko teewee a teewee yoon diwén jërë ngeen jëf looy ñu yi nga xamante yaa ngi ànd nekk si waañ bi di la di leen jàppale di leen soññi rek di leen soññi kuy def lu baax moom bu ñu la soññee moom doo doo sonn doo yokkat ñu ngi góorgóor di yokk góorgóor di dëgëral taxawaay bi yokk man-man bi yàlla jàpp ñu xam ne nga dama sëñ Tuubaa loolu ñu jërë ngeen ak yéen ñi taxaw fii ñu ngi la makk seen coon di leen jaaraamal yal na yàlla fay sëñ Tuubaa fayal ñu boppam jaa ngeen jëf waaw ñu ngi sant suñu bu baax di jublu senant bi di sant euh, sëñ sëñ sëñ Bamba mu nga xam ne moo waral lii lépp yi nga xam ne liggéey bi moom mu ngi nii tey Touba Mouride ñoo xewle Touba Mouride moom képp ku xam xam ko si liggéey si jaamu yàlla ak bëgg sëriñ bi loolu dong mooy suñu yitte moom la si la ñu liggéey guddi ak bëccëg ndax euh, euh, lii ba ñu ko taxawee léegi yàgg na lool waaye euh, ñu ngi si gis yokkute bu baax ndax chaque année ñu ñooy nekk si wàllum kefe geeg wàllum berne yi ndox meek yooyu jëm si biir base bi. ñoo ngi si sant suñu borom bu baax ndax am na solo lool liggéey sëñ moom moom moom daanaka moo àdduna bi moom moo fi des te mu ñu mooy suñu yitte ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp rek aussi di gërëm dëkk yi xam ne ñu ngi war dëkk bi ndax saa bu ñu xewlee. ñëpp dinañ ñëw ñëpp dinañ teew dinañ si liggéey liggéey bu am solo bu ko defee rek euh, ñi gën a yi ndaw ñi di gën a yi mag ñi nga xam ne ñoo ngi si dëkk bi euh, ñi gën ñuy jàppale si liggéey bi nga xam ne lii rek moom fi des waaw moom des ndax euh, boo seetloo liggéey daanaka mag ñëpp retraite nañ kon ñun loolu nag mooy suñu yitte ñi nga xam ne ñoo woote bis bi jàng dong jàng lañ soxla ak liggéey tawaay bu baax loolu daal yaakaar naa ne mooy mooy kii bis mu ëmb bis bi ñoo ngi sant suñu borom baax ngi fii ci Touba Mouride ci kër xalifa bi di Serigne Thierno Bousso di xalifa Touba Mouride euh, ñu ngi yoon fii tey ci bisu mag bi bis bu tedd bi bi nga xamante ni moom la ñu defal sunu maam Serigne Aliou Ndiaye Bousso di ko defal si Ahmadou Bamba Khadim yëpp ak jullit yëpp day daje ñëw fi nga xam ne mooy kër xalifa bi di ko siyaar li nga xamante ni mooy addee bi nga xamante ni moom la waa daayira Dakar yi indi ngir siyaare ko seen xalifa Serigne Thierno Bousso kon su ko defee rek ñu jox Serigne Alaaji Bousso mi nga xamante sët la waaye doom la ci xalifa bi waaw mi nga moo présenté waa Ndakaaru njox kàddu gi mu di ubbi daal di waxal ci turu daayira bi incha allahu rabbi. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi leen nuyu di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax te di leen sargal bu baax a baax si teewaay bi ak pastif bi ñoo ngi leen di siyaara di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu xalif bi di suñu wayjur di suñu lépp ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànn ak wér ndax depuis toogaayam ba léegi gis nañ nii lay nii lay doxee te doxin wi rafet na lool kon ñoo ngi koy ñaanal suñu borom sàmm ko di ñaanal waa daara ji ak waa dëkk bi yëpp ndax liir seenu positif la amee ñoo am initiative bi xam ne njiit mënul la ñàkk kilifa mënul la ñàkk ñu jël seen kilifa def ko kilifa saa su nekk ñu fas yéene di ko jox addiya nii lañ ko defoon at yu weesu nii lañ ko bëgg di wéyalee te di sàkku ngërëmu sëñ Tuubaa dong ndax kat fii dëkkub sëñ Touba la dama koy wax fii dëkkub sëñ Touba la ni Touba di doxee lay fii di doxe loolu nag moom dañ koy doxee te dañuy jaral lu nekk jaayante waat dëggal seen bopp ngir liggéeyal sëñ Touba si jëmm ji nga xam ne nag moo ñu fi nekkal te moo moo fi nekkal maam yi moo fi nekkal waajur yi kon ñoo ngi koy ñaanal baax a baax mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kon nag lii sunu addiya la ñoonu la koy joxaat di koy yeesluwaat di yeesluwaat suñu bopp di la dénkaat suñu bopp di ñaan nga ñuy bàyyi xel lii yëpp nag moo ngi amee si jiitu jëw jëwrin suñu sere bu buso waaw kàddum laay waxee ñoo ngi koy ñaanal baax a baax itam yow itam di sàkk nga ñaanal ko ndax boo ko ñaanalee rek dana wàcc si ñun ndax koy teg dangay ngay sa kaw bu wàccee mu laalaale ñu si suuf kon nag jarul guddal dañ doon joxe suñu addiya rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu da leen gërëm da sant ci lii ngeen def dama leen naa xamoon ne soldat yi Sëñ Tuuba pire pire pire pire mooy borom kër gi mooy dokk kumba mooy soldat yi Sëñ Tuuba pire fii mooy daaj ñombaato ba ñu xàngal fii moroon daaj bon bu ngeen jógee gasaar ren bi ba jëng ngeen di ci sotti ndox bu mu nii de sax ñu ngi leen na gërëm da ñaanal te li ma leen naa wax mun du gudd ku ñoo dab laa taxoon ñu jot la de ñun nag fañ ñoo dab lu fi ñu waay def fañ ñoo dab nañ wéyale rek bu ñu kenn di jot ci yoonu Sëñ Tuuba nañ góorgóorlu sant nañ leen nag gërëm leen ndax li ngeen a def ñoo ko waroon def te mënatuñ ko foogoon nañ ne bay doog ko bu fi bu yoonu Sëñ Tuuba xaw a rëq waaye fu mu ne la gën a jolli fu ne ni boo ko yeewoon wax ko ko mboolem mag mu fi newoon soo xol seddu la kon ñu ngi leen a gërëm da leen sant da ñaan ci sëñ Touba yàlla bu leen wàññee ko ci fu yan na ngeen yokk képp ko xam ne ñëw nga ci daje bii yan na nga yokk ci saayir ak ci baatin ba ci borom garaat yële yan na ngeen ba toog dëxalif nit ñi ci barke sëñ Touba jaa ngeen jëf gërëm nañ leen sant nañ mooy Serigne Omar Bousso mooy jëwriñu xalif bi waaw moom moo moo ko mooy féete loxo nday moo doon yëkkati kàddu yi rakk la ci moom Cerno da xam le rek suñ kontaan ak suñ mbëg maanaam daanaka ni ko Niyaa Omar waxee rek ni la demee xanaa soññe rek nit ki nag bu awee ci yoon wu baax danga koy soññ mu gën a góorlu bañ a taxaw bañ a gëstoo su ko defee kenn du ko jot ni ko Niyaa Omar waxee comme a ngi ci yoon wi nag suma nijaay nee na gis na seen Pastef gis na seen xol gis na seen jëf lim leen di ñaanal maanaam xol dafa loo xam ne du mënoo koy firi ba ñëpp de ko gis waaye su mënoon a firi xolam bi ngeen gis li ci ne da ngeen xam ne xamut lenn loo benn taxawaay boo xam ne euh, fam leen yéene yées na ko su doon sagoom dañooy roy ci yéen te duñ leen jot muk ah lii nag moo de yoonu sëñ Touba jaamu yàlla ak liggéey ak jàng moo de kenn yi nga xam ne moo fondement yoonu murit jaamu yàlla manta ñàkk jullit day jaamu yàlla jaamu yàlla mooy dundal roo kon nit ki rooxam dafa war a dund su ko defee jàng xam-xam mooy dundal xol xel su ko defee xel mi it dafa war a dund bu xol bi dundee ndaxama bu roog yi dundee xel mi dund jëf mi ji dafa war a dund te mooy liggéey liggéey ak jaamu yàlla sëñ Touba masu koy tardeel kon yéen ñi ci toppit na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey ak jàng ñett yooyu kenn ku ko def bu waa yoon wi day yokk waaye wàññi ak wàññeeku du ci am ndax daan na wax ne seytaane bokk dañu de ko fexeel di jaar diggante muridi ak sakku xam-xam kon nag su ngeen jógee de sakku xam-xam kon mel na ni yéen a ngi bëgg a nasaxal saytaane ci bor boobu ngeen ngeen dolli cee sax dolli cee góorgóorlu te su ma nijaay mii kalifa moom kenn mënu koo ñàkk waaye bu la yàlla joxee kalifa go lewet kalifa gu baax kalifa gu jàmbure kalifa gu xam xel moo xam ne euh, euh, mën na caay lijjanti lépp dangay sawar da ngay sant yàlla ndax bu la joxoon kalifa gu naqari da nga war a topp boo ko toppee war nga ko topp boo ko toppul war nga ko topp kon nag bu la yàlla joxee kalifa gu lewe kalifa gu neex a topp kalifa goo xam ne du la dugal mukk ci coono su boobaa yéen topp gi yéen ñi yéen ci bénéfice su yéen a ciy jëriñu lii ci gàttal daal ne mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax taxaw ngeen ci li ngeen war a taxaw ab julit moom bu fekkee mu ngi jaamu yàlla di liggéey di sakku xam-xam ah te itam bokk gi ngeen taxaw ci na ngeen ci war a taxawee ndax bokk dafa am solo ndax eh, nit ku ne xam na ñetti mbokk yoo xam ne bu ne xam na moom xaq mbokkum jullit dafa war a xam xaq ca morom ma mbokkum dëkkandoor noonu mbokkum eh, deret noonu kon toppatoo ngeen mbokku deret gi askan wi ngeen bokk ku ci doxatoon jullit it maanaam yaa ngi dox tànki mbokkum deret ku ci doon jullit yaa ngi boole ñaari tànk yi mbokkam deret ak mbokkam julit ku ci di julit te dëkk de bokk ci deret ngeen bokk diina te ngeen dëkk mu de ñetti xàq yi nga xam ne doomu adama ju ne xamee na ko morom foog nga dëkk ak nit ñi ki nga dëkkat bu doon katolik bu doon chrétien bu doon leneen lum mu mënta doon xàq ji war seen diggante da nga ko war a dox ndax ngi wax ne Abu Hanifa mos na xam benn dëkkandooram boo xam ne bokkuñ diina bu guddi haan abu anifa din fanaanee naafe la moom mu naan ba mandi di fanaanoo fecc waaye ba mu ko déggutee dafa sol daf ko laajte ñu ne dañ ko jàpp mu dem ba ca kaso seeti ko te bokkuñ sax diina loolu mooy mbokkam jullit ndaxam mbokkam dëkkandoor bu ngeen bokku diina bokk leen xaskanit dëkkandoor gi moom dafa am lu mu la sant su ko defee ngeen taxaw ngeen ci loolu bu baax ñetti xàq yëpp daal yéen a koy doxal kon mu ngi leen a soññ di leen gërëm di leen sant yàlla guddal seen fan guddal seen fan dëgëral seen taxawaay jaahi nabil wara loolu rek lañ ci doon sànni. ñu ngi nuyu yéen bokki jullit yi bokki taale bi yéen ñi fi dajee ñëpp bés ni tey ci bés bi nga xam ne bés bu tedd la bés boo xam ne dëkk bi yëpp ak bokki réew mi bokki jullit yëpp ñu ngi koy bégee. kenn ku ne de am nim sëb teew fii ci bés bi ni tey ndax bés bi mbég la ci mbégam ñaw mbaa eh, ñaw baatu dañ ko bëgge ñëpp dañ ko bëgge waxtu ne ñu ngi yàkkante bis bi teew eh, ñu ngi nuyu eh, seex bi toog mu ne nijaay alaaji Carno Buso nga xam ne tey moo fi teewal maam haali jee Buso teewal fi Mamad jee Sanga yeen jee Seeni jee wal fi sëriñ Mor Dokk Bousso ak mboolem xaskanu Bousso bi sëriñ maam Matar Kumba maam Homor Kumba ñëpp tey ak waa dëkk bi yëpp ñëpp tey ñeent ñii ñoo leen ñee meññ muy maam Haali Jee Mamad Jee Sanga Yeen Jee Seeni Jee lépp tey moom meññi barab bii tey ñi sant Bousso ñi sant di Dibaak ak ku mën a doon ñii ñoo leen meññ bés bii tey man bu ma bégee la bés bu ma bégee la man am sutu tey ndax barab bii de ñun dañ ko dara joxoo dañ ko tiitaroo ci fànn wu ne ak waxtu wu ne jamono ju ne saa ne. addi bii ngeen daje yéen mbooloo mii nga xam ne yéen a ngi taxaw tem ngir dundal islaam ngir dundam yoonu seexal xadiim taxaw tem di jàng xasaayit jàng alquranul karim di jàng xam-xam di leerlu seen diina di ñàq di dajaleen seen addiya ngir bés bii nga xam ne waxtu wu ngeen fi jógee ko bu ngeen demee yéen a ngi tàmbali a dajale ngir bés bi rek kon loolu ñu ngi leen cee sant ba gërëm da leen ci ñaanal yàgg ak yokku ak defaru gudul yàq yéen yàlla def ko ci yéen ñu ngi ñaan ci kattanu saa moom ki nga xam nii tey mooy xalifa bi nijaay Alaaji Cerno Buso mii sunu borom bàyyi ko mu dund téeméeri at ak lu teg loo xam ne dal ko métti ak rakam nijaay Omar Buso mi wax na léegi ñu ngi sant bu baax di gërëm benn bés naa fii ci mbaar mi mu wax ne dëkk bi ba dëkk bi daj waxtu wuñ kenn ku ne xamee la nga war a def daje bi lu yomb laay doon ci moom du ci am benn jafe-jafe loolu nag ñu bokk yéene bokk Pastef ñoom rekk ko man xam na barab boo xam ne tey boo fa doon dajale fukki junne rek laa wax boo ko fa doon dajale da nga sonn de te du dajee mukk kon mu mel ni dëkk bi yëpp dañoo ànd manko def benn bopp fas yéene liggéeyal yàlla liggéeyal Yonent bi salaam alayhi xaari sallam liggéeyal te loolu moom ku fi teew ci seen barab bii teew ci tànt bi da nga xam ne loolu mooy li mooy li wér mooy li aada yi bii ngeen dajale tey def ngeen ko fi defate ko fi defate ko fi ma xam ne mu wér ne Pastef moo ko lal waaye Serigne Touba dafa wax ne li addal haadiyatu waahid sa sina xaar sara alfan benn addiya dañ ko fay fukki junne ñaar te woo moom la laq la mooy la gën a néew ci pay nekk na ci moom la addiya loo xam ne laa yukkatu bi aqlaami laa bi kalaami bilistaan xilin boobu mënu ko binde laamin mënu ko tudd benn dërëm bu nekk fukki junne ñaar mooy li gën a néew tey ci àddiya am loo xam ne nii nee na la xale bu mënu ko bind làmmiñ mënu ko tudd kon àddiya li ci nekk dana taxit nga jiitu sag maas moom àddiya dana tax euh, ñaari malaaka yi laaj li ci bàmmeel duñ la laaj àddiya li ci nekk kenn mënu dox sàq saanum toll bu ko defee loolu nag bu fekkee fas na ñàq di ñàq di ñuqi julli joxti juróom di moytu ndako tooñ di topp toog bokk yéen a ngi ci kaw waaye yàlla bu seytaane am ci yéen wàll yàlla bu seytaane am ci yéen wàll yàlla bu seytaane am ci yéen wàll damaa bëgg ngeen góorgóorlu lu baax di liggéey di ñàkk di joxe hadiya te da ko def te yàlla tax te àdduna ba àjjana yéen yàlla def ko ci yéen li ngeen a yëngu yàlla ci barkitaab bi ba àdduna yëpp xam ne barkitaab bi na ci addiya mii ngeen joxe yéen bokk ci addiya yi gën a nangu ci doole Sëñ Tuubaa barke maam Cerno Birahim barke suñuy wayo yéen a seen poosi ba mu fees dell mu duy seen waxande yi duy seen arbuwaal yi duy seen wëlis ba mu fees del ak accord te xiir nag daa ji xool yi nag ñu mën koo joxe ndax kat fa amal imaanu fa bil qalbi wa nutqu bi lisaani wal hamlu bil jawaari gëm ci xol la ne waaye boo waxu duñ ñu xam nit ñi duñ xam waaye boo waxee mën a da ngay jëf mu mën a sotti waaye gëm ci xol nga wax nit ñi dégg nga ne doo jëf waxe kese la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngeen baax waaw ñoo ngi lay ziar bu baax moom kay tawarikàlla ñoo ngi sant bu baax a baax euh, ki nga xam ne nii moo yilif gox bi yëpp si wàllu gouvernement bi muy préfet ak sous ak maire bi ak soldat yi nga xam ne moom lañ ñoom la yebal fii rafetlu nañ taxawaay bu baax a baax a baax ndax sappoor yi ñëwoon nañ ci barki démb pomp dëkk bi yëpp ak sa waa ak sa du seen sappoor yi ñoo ngi nii soldat yëpp a ngi nii taxaw kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax boo leen àggee ngeen jotali seen kilifa yi ne leen sëñ bi nee na sant na nee na sant na bu baax a baax a baax waaw ak ak maire rek kii yilif soogoon ak fépp rek ñoo ngi leen di sant di leen gërëm waaw sandar moo leen ñëpp rek ñoo ngi leen di sant kanaa di jox sëñ ñaan rek comme nañ na wa nafsi wal a asiran jaani fa qultu taiban bila tawani mutaqin qabrani sul qurani ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana aqbatubana bi jaay xayri kul qan fi yàgg sëñ yan na fi yàgg tëwër sëñ Bass Anta yan na fi yàgg tëwër ci doole sëñ Tuubaa man ñoo ngi lay jox sa wàcc waaye baax a baax di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow léegi di la laaj eh, na tey jii nii naka nga gisee bés bi ak bés bi ban année ngeen ko sos ñoo ngi leen di siyaar yéen waa waar wi TV eh, ak yéen waa Alfayda TV ci turu mbooloo mii dajee fi ci turu mbokki taalib yëpp ci turu xalifa bi eh, di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan ci barki xaadim rasul yàlla faj seeni aaju yéen ñëpp di ñaan xalifa bi yàlla yàggal ko fi ci barki xaadim rasul waa programme bi nag mu ngi tàmbali 1911 ndax ki sanc dëkk bi ñu koy wax Serigne Alioune Dieng Bousso ci ndigalu Serigne ali Alioune Dieng moomu nag euh, Bokar Ali moo ko meññ ndax Bokar Ali moo jur Abdou Buri Abdou Buri jur euh, usmaan Ousmane jur Demba euh, moom moo jur Aline Dieye Aline jur Ahmad Doko Bousso Ahmad Doko Bousso jur maam Corno ay maam Corno Birahim Bousso mi nga xam ne moo fi nekk xalifa bi tey euh, ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaw noonu daal la demee waaw mu fi nag toog noonu ak ay rakam ci biir tànt bi ak mbokki taalibe yi ñooñu euh, sous moo leen fi yebal ñu ñëw couvrir bés bi si wàll sapoor ñëw na gendarmerie ñëw nañ croix rouge ñëw nañ ñoom ñëpp macha allah am ak ñeneen ñi nga xam ne sax ñu ngi ñëw te yegseeguñu eh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant sous bu baax di sant tamit monsieur le maire fay macha allah am nañ taxawaay bu rëy ci ci ci bés bi dara soo xewul daal wax dëgg yàlla am nañ bégte lu gëj loo xam ne mosu fi am sax laay wax moo fi am. ndax eh, fii Touba Mouride mu ngi bokk ci commune eh, Nioro Alassane santal Euh, département Foundiougne arrondissement Toubacouta département Foundiougne région Fatick. ñi ngi ci waañ bi yaakaar naa ñooñu lan nga leen lan ay kaddu euh, kàddu yéen nga leen di euh, sànni. di leen sant bu baax di leen gërëm di teg nuyoo bi nag ak cant gi ci loxo soxna Ami Bousso moom macha allah c'est spécial ñu ngi koy sant bu baax ak ñi mu àndal. góor ñi ñu ngi sant Serigne Chanet Bousso Serigne Malick Ndiaye ñoom ñooy jëwriñ yi fee ci Dakar. fii ci dëkk bi nag euh, jëwri ni mooy Serigne Ibrahima Bousso ak euh, Serigne Pape buso di doomu xalifa bi Serigne Babacar Diop ñu koy wax Mbay Diop. wax dëgg yàlla seen seen taxawaay macha allah rafet na ñu ngi leen di sant ak Serigne Ibrahima Bousso ñu koy wax Ibou Aram di doomu Ilimaan euh, Serigne Babacar Bousso moom it macha allah taxawaayam rafet na ñu ngi sant benn jàmbaar boo xam ne kenn la ci taalibe yi ñu koy wax Serigne Ibrahima Diba waaw kooku moom. ñu ngi koy ñaanal sunu borom taxawu te musal ko ci cat. ak lislaam ak nangoo liggéey ak ak taalibe ak teggin kon nag ñu sant ñëpp di leen gërëm bu baax di nuyu sëriñ jëwriñ ji kii mooy jëwriñ sëriñ euh, Malick Ndiaye mi nga yor kuréel gu fee ci Ndakaaru kon jëwriñ euh, bés baa ngoog euh, taxawaay bi gis nga nu mu jekkee kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la si ak tuuti rek. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah bis bi mooy sunu bég bisu mbégte mooy bis bi nga ne wax dëgg moom la ñëpp doon ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi seen xalifa yaa na fi yàgg te wér mi alaaj Cerno Buso muy dëkk Serigne Touba dëkk maam Ali Dieye di nekkoon di nijaay sëriñ Touba mu sanc dëkk bii comme dëkk bi nuñ mën a mel murit lañ war a doon si lañ war a dox si lañ war a wax kon ñu ngi ñaan yàlla ñu defal ñu bis bi muccee bi si tawfeex bis mbéte ñun ñoo xam ñooy jóor ñoo xam ñooy féetoo Dakar ñi ñoo nekkoon fii doon defal siyaar bi nga xam ne moom la ñu amal sunu xalifa général di euh, Serigne maam Cerno Buso mi nga xam na ni wax dëgg yàlla sunu lépp moom lañ ko jox. kon nag bis baa nga noon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp force de l'ordre sapeur servi di seen ñëpp ñu ngi leen sant bu baax sant kilifa yëpp di leen ñaanal jàmm ak tawfeex macha allah lii moo doon siyaar bi nga xam ne ni moom lañ doon def tey le 12 mars samedi incha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax daal jërëjëf sëñ Matar di jërëjëf sëriñ Diorin kon ñu ngi taxawa sëriñ Matar Bousso di kenn ci doomu xalifa bi sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu sa baale sërif Ah, noonu la leen fay di leen sant di gërëm bu baax a baax a baax rafetlu leen lépp loo xam ne ni def ngeen ko fii man daal sama xol dafa sedd guy di ñaan xalifa bi yàlla na fi yàgg te wér suñu Muntaxa Basiir yàlla na ko yàlla may fan xam naa daal sama xol sedd na guy ci yéen maa leen tiitaroo na da leen bu faw nag dama bëgg daal yàlla sama borom mi nga xam ne moo xam li gën man li gën yor li gën te may li gën yàlla may li gën addina àllaxar jëf sëriñ Makhtar Bousso moom itam borom pastéef la nit ku baax la moom ci milliardaire sëriñ Tuubaa la war a bokk ndax macha allah lépp lu baax rek jëlee na ko ci réew yam daan dem mu nekk dem na Canada dem na Amérique mu nekk ngir indi ci dëkk bi ay teraanga waar wi TV ak Alfayda TV mi télévision yi mag yi nga xamante ni moom la askan yëpp di wër jërë ngeen jëf yéen tamit gis nañ taxawaay bu baax a baax a baax di sant euh, sëñ sëñ sëñ Bamba nga mu nga xam ne moo waral lii lépp li xam ne liggéey bi moom mu ngi nii tey Touba Mouride ñoo xewle Touba Mouride moom képp koo xam xam ko si liggéey si jaamu yàlla ak bëgg sëriñ bi loolu dong mooy ci ni yitte moom la si la ñuy liggéey guddi ak bëccëg ndax euh, euh, lii ba ñu ko taxawee léegi yàgg na lool waaye ñu ngi si gis yokkute bu baax ndax chaque année ñu ñooy nekk si wàllum kefe geeg wàllum berne yi ndox meek yooyu jëm si biir baas bi ñu ngi ci sant suñ borom bu baax ndax am na solo lool liggéey sëñ moom moom moom daanaka moo àdduna bi moom moo fi des te ñun mooy suñu yitte ñoo ngi sant bu baax di gërëm euh, ñëpp rek aussi di gërëm euh, dëkk yi xam ne ñu ngi war dëkk bi ndax euh, saa bu ñu xewlee ñëpp dinañ ñëw ñëpp dinañu teew dinañu ci liggéey liggéey bu am solo bu ko defee rek ñi gën a soññi ndaw ñi di gën a soññi mag ñi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ñi gën ñuy jàppale si liggéey bi nga xam ne lii rek moom moo fi des waaw moom moo fi des ndax boo seetloo liggéey bi daanaka euh, mag ñëpp retraité nañ kon euh, ñun loolu nag mooy suñu yitte ñi nga xam ne ñoo woote bis bi jàng dong jàng soxla ak liggéey tawaay bu baax loolu daal yaakaar naa ne mooy mooy kii bis mu ëmb bis bi ñoo sant suñu borom bu baax laka Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf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 Cuba! dundal bu ñuy dee yaa ngi moom man Bamba yaa ngi moom bu ñuy dundal bu ñuy dee yaa ngi moom man Bamba yaa ngi moom bu ñuy dundal bu ñuy dee yaa ngi moom man Bamba yaa ngi moom bu ñuy dundal bu ñuy dee yaa ngi moom man Bamba yaa ngi moom bu ñuy dundal bu ñuy dee yaa ngi moom man Bamba yaa ngi moom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 الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قرأه محديا حقه مع الأعضاء وقلب اللسان وهب لنا به الخير والسعادة والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال ومن سؤال منكر ونكير